nit ñi tooguñ fi di topp topp. mais justement le président élu dit que euh, lu bëri xew na mais il faut qu'on passe maintenant ñu jàll ci leneen euh, tey jii nii réconciliation nationale boobee ñuy woote euh, jàpp nga ne est-ce que jalon yëpp a nekk qu'on oublie tout ce qui s'est passé. waaw xam nga man li ma leen di conseiller mooy on ne peut pas on peut on peut pardonner xaw ma on pardonner. Mhm. mais oublier c'est difficile. Mhm. dans la vie oublier c'est très difficile. il ne faut pas nit ab góobam nga ne ko fàtte ko. Mhm. ne ko baaleel. mënee baale ah nee euh, nañ wat nañ loi amnistie mais yaakaar naa ubbil nañ yoon ñi nga xam ne nii baalewuñ ñu man ko topp civil. Mhm. loolu ku ku toog toppoo ko yow baale nga. du mhm. dëgg waaye euh, kenn bu ta wax ne on oublie ce qui s'est passé suñ ko fàttee rek. dafa jege trop ba ki dem la suñ ko fàttee rek. Mhm. day tax ëllëg ñu ñemewaat ko def. man je pense que ce sera. Euh, pour impunité. waaw dafa war a nekk loo xam dañ koy fàttali nit ñi ne. toog di tuumaal doomu aadama suñ toog koon la yàlla wax ci alxuraan diggante góor ak jigéen tuuma ji dafa dafa jafe trop yàlla daf ko tere daf ko tere trop lim ci joxe comme exemple ne loolooy tax nga war ko def dafa diis euh, tuuma rek tuuma rek yëpp mm-hmm. tëye tamit derb jàmbur dig ci xas muy ci réseau sociaux wala yëpp yàlla lim ci lim ci teg dafa dafa diis ah yooyu yëpp nag dañ ko war di war rek régler ci suñ réew mi régler suñu dee wan ne lii gis nga lim ñu jural gis nga lim ñu jural ñaata bakkan ah ñu naan quatre ak ñaata alal moo yàq ak économie bi économie bi waxuma li yàqu mais li waroon a yokku te mm-hmm. yokku ak ñu waroon a ñëw te ñëwuñu ak ñu waroon a mm-hmm. yooyu yëpp dañoo war di ko fàttali et en tamit Sénégal dem ci beneen débat économique ñu dem ci débat économique débat économique yaatu na mën nañoo fi ne ni tey mbay mi mën nañ cee wax ba bëgg a dee mën nañoo wax ci càmm gi mën nañoo wax ci artisanat wax ci média bi mais tamit Euh, je pense que rôle média yi tamit dama doon wax su ñuy wax ay assise nationale mm-hmm. man su ma doon Sénégal assise assise bi ma war a njëkk a def mooy assise de de média